mais mais mais sànq bi ñuy euh, situer les responsabilités da nga ne euh, c'est partagé. waaw mais da nga fàtte justice aussi justice ñu bari dañoo jàpp ne bokk na euh, ci li ci li ci li taal réew mi en en référence à la conduite de plusieurs dossiers mhm. politico-judiciaires. mu am ñoo xam ne jàpp nañu justice am na taxawaay bu mu doon taxawee on n'en serait pas là aujourd'hui il euh, y a eu les précédents Khalifa Sall euh, Karim Wade il y a eu le procès en diffamation euh, gis nga mbir mi nu mu demee bon xam naa ne avocat nga doo mën a prononcé wu mais gis nga dossier bi nu mu demee il y a eu euh, l'affaire euh, Beauty am nañu jàpp ne on aurait pu tuer dans l'œuf Euh, cette affaire là et euh, ne pas en arriver à ce que mu taal Sénégal da ngay partager euh, cette mise en accusation de la justice. Mm, may mun a man justice sama point de vue li li ma ci wax du tey laa ko wax ba may interpeller ci affaire justice ak ñu xoolaat place am ñu gëstuwaat ko. xam nga tangu tangu kan la woon dem si yàlla Jacques Baudin xam nga yàgg na. Hmm, tangu Abdou tangu 93 yooyu. ab Jack Bodin Serigne Diop wuutu ko fi ñu ñu jote lu metti ci affaire justice. Mamba Serigne Lamine Diop. pas Serigne Diop le constitutionnaliste Serigne Diop le constitutionnaliste. ah Serigne la justice am nañ ci jote yu tàng ci affaire justice Mamba Dior euh, euh, euh, Aminata Touré. ma rappelé 2008 j'étais bâtonnier de l'ordre des avocats rentrée solennelle des cours des tribunaux ñëpp dégg nañ ma si kanam Ablaye Wade texte boobu su ma ko génnoon li ñuy wax tey justice bi ma woon foofu. ça n'avait pas plu. ça n'avait pas plu mais li si gën a désolant tey homme politique yi wax si affaire justice ba ma koy wax kenn feeluwu ba moo tax souvent je suis très damay xaw a am retrait bu fekkee ne homme homme politique moo concerne justice du ma ci bëgg wax lu bari. parce que justice bu fonctionnel bu baax au quotidien mais ça touche les citoyens tous les jours lu tax ñuy xaar ba am politique am problème ñu ne justice justice bi ma amee beneen problème ak justice en deux mille fàtte naa année bi am benn dossier bu ñu ma ñu jàppalaa main dans le sac ay magistrats corrompus ma porté plainte d'ailleurs plainte boobu maa ngi ko yónnee woon of nag ba tey dara génnu ci c'était en 2014 je pense vers 2014 ma dénoncé corruption de ay magistrats pris la main dans le sac ñu def seen complot ne dañ may dañ may dañ dañ dañ may arrêté la. mais y' a eu des y' a eu des sanctions quand même même bu fekkee ne amul des poursuites judiciaires. y' a a eu des y' a y' affectations. y' non non y' a eu des des non non non. y' a eu un mouvement de chaises musicales. non mais c' était pas c' est pas des sanctions c' est pas des sanctions c' ça loolooy problème chaque fois qu' il y a eu des problèmes avec des magistrats on considère qu'on les a sanctionnés jëlee leen fii yóbbu leen fële mais loolu du solution. il faut faire des exemples parce que c'est pas normal justice bu ma nekk Sénégal depuis indépendance ñaata yoon nga fi mës dégg ñu sanctionné magistrat peut-être une ou deux fois. mais IGAJ am na ay magistrats yu ñu. yu ñu poursuivre euh, devant euh, en tout cas li ma la wax daal mooy man problème justice kenn gënuma ci conscient wax naa ko ba tey wax ko ci kanam Ablaye Wade. waxati ko ñu ñu bëgg ma complot bëgg ma arrêté bu dul woon ordre des avocats ak batuñu Ahmed Ba kon gars yi arrêté nañ boobu homme politique ça les intéresse pas loolu mooy c'est-à-dire que Sénégal tamit li ko yàq mooy gis nga ce qui sa présente comme des leaders problème doo ko régler ci tàngay tàng tàng problème bu ñu ko bëggee régler dañ koy régler à froid gis nga ba coow boobu amee ba may saay ne dañ may dañ may fexeel pour battu ñaamet ba encore une fois ba rendre ko hommage mu mobiliser ordre ba gars yi dellu ginnaaw président de la république yónnee ko Sidiki Kaba ne ko dinañ def état général de la justice xam nga lu tax defuñu état général de la justice yenn magistrat UMS euh, euh, euh, dañ dem si président ne ko boo ko defee da ngay jox raison Mame Adama Gueye ñu aj ko mais li ma lay wax du dañ mooy tant gëm naa ne tant que defuñu état général de la justice avec toutes les parties prenantes parce que bu may partie prenante justice waa affaire wu justice ak état rek te dama ci yokk benn affaire parce que souvent affaire indépendance de la justice dañ koy poser rek en fonction de la relation exécutif ak magistrature lu bari lu yàq justice du état. lan la. alal corruption influence religieuse. influence euh, confrérie yooyu yëpp si si influence yi nga xam ne dafay am incidence bu baaxul ci biir justice la bokk donc problème yooyu foog ñu teg ko def benn état général de la justice xool relation pouvoir exécutif ak justice parce que tamit tey dafa am benn lu fondamental mooy rapport justice ak exécutif exécutif dafa ëpp doole donc indépendance bi ce n'est pas évident c'est pas évident donc loolu foog yéen ñu teg ko ci table bi créer les conditions ba nga xam ne tey pouvoir exécutif si nomination magistrat yeex fi mu leen déplacé dootul am influence bi mu am tey sur la carrière de magistrats question boobu foog ñu teg ko ak toutes les parties prenantes mooy état juge avocat huissier société civile ñëpp toog même conseil supérieur de la magistrature à l'époque quand j'ai fait ce discours en 2008 Ablaye Wade dama ne ko ñu dugal ci conseil supérieur de la magistrature des avocats des membres de la société civile comme ça existe dans d'autres pays parce que justice du affaire u état ak juge rek la justice est rendue nom du peuple donc aspect boobu daf si am solo tamit donc problème problématique justice man du cas bi rek laa ko gis parce que c'est un problème dafa yàgg mais foog ñu affronter ko et li tax am solo c'est que justice dafa nekk ci këru société moom justice moom mooy réguler société te li mu koy réguler du du du politique rek politique ci la bokk sociale mooy tax nit ñi duñu xeex wala di reyante économique justice dafa am rôle économique bu important investisseurs yi bu ñu investir si réew dañu seet tamit. le cadre juridique bien sûr. et y a eu beaucoup de bu ma amee problème est-ce que bu ma demee ci juge nañ ma ko dañ ko jaarale yoon donc loolu. c'est un gros problème c'est un gros chantier. mais parce que, parce Sénégal mais bu mu tàng ñu bëgg ko rek ci tàng tàng du mun a nekk. de de 2013 le gouvernement conscient de cet état de fait après les affaires ArcelorMittal euh, nu mu tudd Hélio-Québec. Euh, c'était des précédents euh, def nañ réforme ba commencé am de bons classements dans le rapport doing doing business mais mais mais est-ce que dañoo commencé am une une république des juges au Sénégal est-ce que dinañu am courage Euh, wax lu ñu xalaat ci ci justice bi c'est-à-dire euh, aujourd'hui am na positions yoo xam ne boo ko jëlee wax ci justice bi euh, le procureur s'autosaisit <laughs> man sax dans le cadre de mes émissions j'évite de dire certaines choses alors que oh, oh. am nañu droit def le diagnostic de cette de cette justice qui n'est qui n'est pas juste est-ce que est-ce que mën nañu am on peut pas globaliser en disant que justice qui n'est pas juste c'est-à-dire que dans la justice il y des magistrats, il y a des juridictions qui fonctionnent très bien, qui font leur travail très bien. Il y des magistrats, il y a des juridictions qui ne marchent pas très bien. Quelquefois par incompétence, quelquefois parce que c'est des questions d'intégrité. Les citoyens doivent pouvoir raisonnablement donner, sur la justice. Sans pour autant, nous avons Bien poursuite. entendu, aujourd'hui, il y a des abus de ce point de vue. Et du si d'ailleurs, aujourd'hui, manqueur même par rapport la presse. cette histoire affaire euh, euh, euh, diffusion de fausse nouvelle boobu façon bi koy utiliser c'est exagéré. ak diffamation. c'est exagéré c'est très exagéré parce que vouloir exiger que ku lu di wax am certitude cent pour ko prouver ku ko mun loolu c'est pas possible aujourd'hui il a un usage parce que euh, abusif de ça. du délit. oui il a un usage abusif du délit et ça c'est quand même une dérive boo xam ne c'est pas souhaitable. c'est c'est pas c'est pas souhaitable